ñaaw ndaw maa ngi lay nuyu man ak Adama bu Ngéwél ñu lay nuyu. Modou maa lay fay bu baax a baax a baax di sama adversaire bu baax a baax waaw di nuyu sama papa borom Daaru Nouré di nuyu waa Sikori waaw di nuyu baax a baax di leen bu baax mm-hmm. waaw di nuyu sama mag yi nekk si kaso bi yëpp waa 100 mètres naa Campanale ñëpp maa leen bëggee waa Mbour mm-hmm. waa gars yi di la ñaan jàmm di nuyu waa Gourane sama dëkk Guédiawaye di nuyu sama adversaire mm-hmm. waaw. sa xale ci sa enfance bari na lay tàllal micro nga ne maa ngi nuyu gars maa ngi nuyu waa kaso bi li may dégg sa la kàllaama boobu ci yow pourquoi waa kaso bi lan la dafa am ñoo fa xam dafa am jaar-jaar wala lan la demee. waaw loolu xam nga mosu wax sama xol day tooy ndax am benn mag boo xamante ni lépp la woon ci man muy Kéré Ndiaye Ablaye naa tuuti xam nga Boucar ñoom Balla ñoom Cheikh Colobane def ci man lu nekk ba mu yóbbu Mbabat di ma jàppale. seen fukk seen ñaar waa sama grand combat fekk leen fi fekk leen ci biir waaw man tam damay sàmm kóllëre boobu quoi moom duñ la gën a gore quoi. mais moo tax chaque jour rek maanaam bu ñu toogee di ko gisee ni morom loolu day nekk bonheur boo xamante ni si ñoom day mel ay millions laa leen may. Mm-hmm. moo tax chaque jour rek dama parce que tam mënuñu seen bopp lu bari ñoo leen mën a teewal fii ko te buñ fi nekkoon dañuy teewal. dañuy yu. waaw relation yu yàgg nañ jox waaw Modou man si milieu laa juddoo. waaw <laughs> dëgg. bon mbir dëkk ci banlieue bi. Mm-hmm. dañ koy dañ koy dundoo ah. am naa ay nekk ci yoon boobu tey ndaw nga porteur de voix xale nga boo xamante ni banlieue bi jox nañ la boobu boo amee benn message. ñu ñaamu daw di lancé ci a war ñu ko fekk kuy ji dama war a waaw loolu moom dama ciy waxaat samay xarit bi may ànd dañ gën a ñaax rek jàpp liggéey bi xam nga dóor waar la parce que man gars yi heure bu leen seetee si biir dañ may conseil mm-hmm. yaa ngi gis boo may seet si da ngay dem 100 mètres. Mm-hmm. da ngay dem tribunal. Mm-hmm. ut këyit ut visite ñu xam nga ñëw si ñëw si porte bi gars yi nangu sa pièce yëpp nga dugg si biir. loolu coono boobu noonu maanaam ñoom ñu ñuy sonal ñun. léegi moo tax képp ku nekk si biti rek loo nekk nekk nante loo am am fit fit moytul loolu la parce que boo duggee si nit ngay sonal imagine mu dëkk gunaas gi waaye a yow fajar dem wuti mhm. gis benn doomu aadama waaw dem wuti permis pour gis benn nit wala dem mbuur bu gis pour benn nit mhm. moo bépp booy bu ne si biti rek xam nga ñu lay ñaanal waaw nga liggéey bu baax nekk ci li nga war a nekk ñëpp xam nga que fu ñu dëkk ay jàmbaar dafa nekk mhm. gunaas géejawaay ñu yaakaar ni am ñun gëm-gëm bilaahi moodu fu mu ay jàmbaar dafa nekk. billaahi doomu géej mm-hmm. mm-hmm. dugal ci làmb. waaw ah, dund sama mag. <laughs> ndeysaan. dund moom sama mag la daan bëri xam nga. bàyyi dugg si mboqat bi muy may jaar ci suufu baas yi. Macha ma xanaa ñëw la ay téeréem. ah Macha Ndaamali waaw man Modou xale laa kii sama mag la kii. ban année nga juddoo. jàpp ma ko ne ba ban laa. am na agent am na ay vingt cinq ans nga koy xool. kii kii sama mag la. bàyyi ma sama mag la te am naa benn mag bu jigéen. Macha sama ñoom Macha seen rakk laa te am na leen tarbiyu Macha bu waa boo junee mosu ba jaay si kenn succès wala dara si ñoom. waaw war a toog ñoom di leen di jël sama téléphone papa di leen wooyi enterrement xam nga loolu yombul ma nekkee xale. Hmm. di leen topp fu ñu dem dugg fa di téye seen bagage ba tey xam nga. ñu nekk samay mag ma jiital leen jox leen cër jox leen wàccuwaay bu ñu moom. moo tax boo amee combat dañuy dof. dañuy dof waaw gis nga gars mooy loolu nekkatul ñoom après ñoom jàpp jàpp si rek yi maaji maaji. Mm-hmm. ni nga war a taxawee ni nga war a bële. man xale fan ngaa mbër sama nijaay la man damaa bokk si làmb. Mm-hmm. bon dafa am benn nit bu nekk écurie Walo. waaw. boo xamante ne nii mbër buy bëree dama koy gis moom moo koy indi moom lay accompagner. Mhm. te xool ci écurie bi man man man dama naan ndaanaanu écurie mhm. la waaw kooku mooy kan ci waalo ba loolu lay kooku maanaam mënu ma wax ci moom. Mhm. war na borom daaru sama pap maa ngi ko ñaan yàlla yéen bu xaaral àjjana avant muy gaañ dafa woo sama doom tënk naa la ko parce que man ak moom tam xam mu yar ma si koñ bi ñun ñëpp moo ñu uuf. waaw ñun ñëpp moo ñu uuf amul xolu ki ñaan ñun ñun ñun bu ñuy bëree. moom mooy feebar dañuy nekk Gàmbi xam nga du nuyu waale waa Gàmbi fi ñu nekkoon dañuy tëdd di néeg bi moom mooy feebar man lépp lu ma nar a dal moom la dal man ma dama am sax xam nga ci yu bëri bu jàmm lu mu bëgg ci xolam moom moo xam quoi mais yàlla na ko suñu borom lu bëri quoi parce que moom sama waay la sa waay la waaw sama waay la xam nga ku loo xamante ne danaa la dina la ñu yàlla na ma dal waaw ah, loolu dafa loolu dafa garaaw waaw waaw ñu ngi si kawam la dëgg di ko nuyu xam nga suba si rek fan lañ nekkoon. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax sonn naa trop dama jógee entraînement bi. la <laughs> la dëgg rek a rey gars yi. ñun ci yow lañ découvrir <laughs> liggéey nañ si bu baax mais yàlla baax na. Mm-hmm. yàlla bëri na sutura ko waa. li nga liggéey ci bii moo ëpp moo gën a métti li bi. baax ay dóor ak lépp si am. parce que lamb bu nekk rek ak adversaire bi rek. parce que man soxlawuma benn ma yenn yi daal mais waaw maa ngi jóg. yaa ngi jóg waaw te ku dalanteeg man di nga xam ne maa ngi liggéey. xam ne yaa ngi jóg waaw mm-hmm. mais ñu bëggantee ba dalante. Mm-hmm. alors waaw ñaabu ndaw kañ mm-hmm. ah, boo jënd Fass moomu daan sa premier combat rek. bàyyi na bëre boo jënd Fass <laughs> damaa ñëw dégg xale yóbbu ma fee Demba Diop. booy topp ba mbooloo bi xam nga ma ñëw bëre bëre xale. moom wax na ko sax ne la booy bi booy boobu sama ngem mbapat laa ngem moom Modou. ok bilaahi. sa dem ut benn ñaan xam nga ñoom ñu mooy loolu noonu gars jàpp si mooy loolu. mais baax bu baax tax na ma xamal si làmb lu bari waaw waaw ma xam ne boobu xam nga ñaar bi des na lu bari woon. Mm. après si laa dem liggéey dem Gambie. jooy bi ñëwaat demaat Gambie demaat Gambie demaat Gambie mm-hmm. dem di hivernal lu Gambie di entraîné ak tey jii xam nga ma tegale ma tegale cinq victoire boobu ba léegi allah. macha kon bëri nga six combats. waaw six combats cinq victoire. benn défaite benn défaite nga daanu sa premier combat. léegi man dafa jékki-jékki gis macha allah. benn évolution bu doy waar ci ñaam ndaw. Mm-hmm. ñu dem ba bu ñuy wax géejawaay sax relève bi pépinière bi xale yi fa war a juddu jëm ci kaw. dañ ciy tudd liggéey rek jox làmb cër man làmb maa ngi koy jàmm làmb moomu deseel man làmb maa koy tarbi bu baax baax a baax sama ay mag lu ñu ma wax dama koy def lu ñu ma tere ma bàyyi ko loolu mooy sama secret dama déggal sama ay mag. Hmm. waaw te damay liggéey dama yow Modou. Hmm. su ma la waxoon li may daj ñu ne naan ma non non booy arrêté hmm. waaw damay liggéey parce que xam nga boo waxee ñoo la ñaabu ndox man loolu maanaam loolu man kersa la ma def. damay dawal dóoru sax benn gars yi ñëw ba si. xam na ba fi may dawalee gars daal may kar xam nga na ma mbër mënu ma mënu ma waroo yor lii koo romb mën na la gaañ géewaay ëllëg koo romb mën na la géewaay ëllëg waaw yoon boobu dafa diis kon man ñemewuma sax nekk si biir sa forme man samedi sax dama koy entraîné mm. dimanche sax laay noppal te te dimanche nit ñee tax ma koy noppal aw ma pexe boo rombee gars yi ñu góor la nga dama ñibbi billaahi loolu la rek su ma la déggee mbër dafa ñaar ñaar ndaw ci cinq mhm. waaw. ak <laughs> loolu laa bëgg ma doo bëgg sax làmb rek. Mhm. mais day nekk favori même sama làmb ji sax ma nekk mu favori. Mhm. xam nga adversaire bi lañ favori mais baax na. waaw mais yàlla baax na. yaatal bi nga daal dem ñaabu ndaw la tudd léegi. Mhm. saison bi ci ji ñu ne ñaabu ndaw ak ñoom ngéewal. Mhm. parce que combat de déclenchement la yéen ñaar yéen a ngi ci mun nañ ni classe bi nga niveau bi a ngi terminal ci seen niveau boobu. Mhm. il faut kenn ci yéen ñaar dem bàyyi keneen bi pourquoi yow nga choisir wala nga nangu jël avance su armée bu ngéewal. waaw armée bu ngéewal boo bëgg soo gisee ma jël ko dama bëgg man maanaam laa nangul ma. man daan ay mbër yoo xamante ne après xam nga dañ naan kii moo tax man chaque jour rek ay combat yu métti laay bëgg. Hmm. arme bu ngi loolu su ko daanee làmb ji dama nangul ñu ànd moom ñëpp dañu xam ni man daanaan laa. Hmm. moo tax ma jël ko xam ne combat bi bu métti la combat xale la combat jànq hmm. moom dama koy ñaan lu mu gën a diis gën baax. loolu laa koy ñaan gën a diis na baax. gën a mool. Eh, barki borom daaru <laughs> na noonu poids bi sax dafa ndaw moom bu mu gën ko yóbbu. Eh, man jàmbaar laa. waaw jàmbaar laa. waaw mais Aliou su ma la nee tey bu ñu xoolee xale yi nga xamante ne nii toj nañu ci deux ans yu moom dañ ko ciy comme ni la ciy limee looy wax si loolu. man ma bëree ku dul daanaan man du ma laay bëree parce que dama bëgg jàmbaar jàmbaar laa. Mm-hmm. moo man jàmbaar laay bëree. armée champion la ndaanaan la mbër bu ma respecté la jox cër. Hmm. mais bu ñu wuree. Hmm. <laughs> yàlla baax na. su ma la ñu wax ma ci moom dara ci ay qualité am. Ah, xam naa ko gëstu naa ko armée bu ngéwël. Hmm. moom sax nee na benn la ñaari defet xam naa bu baax. xam naa ay qualité mais xam nga rek nit moom doo dem guerre. di say arme. mais arme xam naa ko bu baax guddi dama koy ca armée bu ngéwël samay làmb ay mi sama téléphone ba waaw moom mu bëri yëpp maa ngi koy. sa guddi la ma koy seetaan. foo leen tëdd xool at boobu ngiwul dugg gisuma dara démb vingt heures laa nelaw yow cinq heures du matin ci yéen laay gis jëmu ji. vraiment gisuma lenn moom dañu maa yónni yàkkamte ma xale laa. bàyyi daaru laa sikorien laa. Hmm. waaw amul dara lu nekk si moom loo xamante ni damay xof wala su ma ko naree def dem bàyyi laa ma leneen. sa bët bi lu ko bi la dëgër dëgg moom si dóor ko. la <laughs> saf. waaw. doon sato xam nga mu daw dóor ba ko mooy loolu mu xeex. mais naaj quoi démb bi mel sax si guddi gi mais instant bi sant quoi. mais mais mbër loolu mel ne làmb ji ah. ci ñëwee beneen xar kanam. damaa dem fay xaalis bëri di daan xeex. damay dóor bu dëgg bëri. bu ko dégg gis na liggéey si xeex bu baax xam nga làmb lépp nga ñëw. waaw bëgg a wane sama bopp ci li ma mën ci xeex li ma jàng. su ma déggee mbër mu ne day ah. mu tuusee mu neex su ma bëree mu neex. waaw yow sama waay maa la ko sant ma ko seet ndaag. yaay tuus mu neex yaay bëri. waaw mu neex. Eh. ah yaay tus mu bëri oh, mu neex mbër. mais ki kii ngay bëreel armée bu ngéwél la tuddee boppam moom ngéwél la de. yow nga sama waay la. waaw kon la mën naa laa bàkkal bàkkal bu ñëpp léegi. dëgg li su ma ne la Modou gën a nga ne na moon naa laa bi. <laughs> Ah. kenn rakit ki ki ki sa jàpp te ba jaakit <laughs> laa bëggoon ne ma. moom ñoo bàyyi lañ dëkk. kon làmb ji bu mu mën a hmm. dégg. bu mu la dégg dëgg du ay ngaax la. le 23 mooy doon bis bi nga xamante ne nii ci la làmb di ubbeeku carrément. lu leer. loo may wax ci promoteur bi tëgg seen combat. waaw Gibson dafa war Abdou Lakhar rek man Abdou Lakhar su ma sax damay bëri yow. Hmm. parce que moo ma yor sama làmb yëpp may daanaka lépp moo ma yor. Hmm. waaw bu indi tey Bombardier su boobaa dama leen koy jël dama koy jël aw ma yëpp problème maa ngi doon toogoon nañu ma ko la ko. ma ne ko su ma doon jël lu ut lu yomb du la jël. mu jàpp ko ay fo. waaw loolu laa man du ma bëri combat bu yomb hmm? neex a faral dimanche prix dip ma libéré la te adversaire yu mu doon bëri adversaire bi mu du yàgg. bilaay walaay du yàgg moo moo damaa a bëri. <laughs> moo su may neexoon damay bëri damay làmb làmb sama dërët la nekk damaa tër bi yu bëri. mais wax wax jotagul. wax jotagul waaw. mais ki nga bëreel dama ko gis ñaari yoon wala ñaari combat yu mujj yëpp dafay dox ci kaw adversaire am. sëqatal ko jàpp ko def li mu bëgg a def dem yoon. ñëwul dox sama kaw ay mbokk duñ ko ko conseil wax moom sax xelam ni ko loolu moom mbër bi xalaatul dox sama kaw adama bu ndew yaa may gis yaa may dégg xalaatoo dox sama kaw ma doxee sama kaw ma duma la ma dóor a nga daan leer laa la wax. suñ demee ci bi bëre bi bu wóoree amee. man ngay waxal ba borom top cinq waaw mu rek rek ba fàtte. ah. man maay top cinq. borom ndox bi maa ngi nii waaw borom ndox baa ngi nii bu ndaw waaw moom ndox bi moom top 5 man moo si ay ndox lay entraîné entraîné mu ci suuf. Eh. maa dépassé suuf ñoom ci suuf la ñuy entraîné man ci ay ndox lay entraîné kuy entraîné ndox amul lenn looy xalaat di sonn wala def dara bilaahi di contact si biir ndox di xeex si biir ndox aw ba lenn lu may xalaat wala moo koy yaakaar si at mi maa ngi ëpp doole foofu. ñaar téeméeri junni yoon barki borom daaru barki daaru maa ko kon doole du tolluwaay. barki borom daaru maa ko ëpp doole maa ko ëpp doole maa gën a diis bokkuñu sax mais loolu wax la borom bopp ñoo koy xam. ko ëpp doole gën koo diis nag doo ko jaarale yoon. bi <laughs> yàlla baax na bu yaa may yëngal mais yàlla baax dund daf maa yàpp na bilaahi. damay bëree damay bëree damay xeex. waaw hmm. ah, damay bëri si damay xeex. mbokk yi ñu waxtaan ak Armé bu Ngéweul ginnaaw bi déggee eh, eh, eh, ki nga xam mooy ñaabu ndaw ñu may ñu bàyyi ko mu woo ay nitam yi nga xamante ni nii war nañ ko jàppale parce que bis bi la 23 la te war na am beneen jàkkaarloo wala dana am beneen waxtaan boo xamante ne nii dinañ ko def. non Modou ak ak yi waaye wooteel. moo sama gërëm bi ko dagg de. non non waaye waaye états ñoo làmb làmb ji. Cheikh job américain xam nga ko mi ngi turam. waaw kooku aw ma fayam. waaw laa mujj may xaalis bu bëri di ko sant du ko ñaanal jàmm bu baax xam nga di nuyu Ndiolé borom Canada suma mag la waaw moom suma lépp la di jàpp si affaire yi xam nga di nuyu xaalis Diop bi nga xamante ni moom may indi si fu ma voyage mu yóbbu ma. mbay Mbaye staff ñoom Momadou Ndiaye mbay Mbaye waaw gars yi booy Dofu Ndiaye Ndoye ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax a baax waa Roué. waaw waa Bala Estar waa Baxdaat ñëpp maa ngi leen woo si combat bi zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 yëpp waa Parcelles waa Pacaxoo Mafia bi waa Pikine gars maa ngi leen woo ñoom xam nga di nuyu Assane Mbodj bu baax waaw di ko wax ne ko waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm moom suma waay di nuyu Assane Colbal Tex maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moo na ni borom Colbal Tex moom sama wëllëg bu yàgg la di nuyu Baye Zane Ndiaye sama doomu ndey xam nga Ablaye Paya maa ngi baax a baax a baax a baax xam nga di woo délégué di woo préfet. maa ngi woo préfet Guédiawaye bu baax di nuyu Lamine doomam waaw di leen woo si combat bi bu baax xam nga di nuyu Dieng borom yow borom Espagne maa ngi koy nuyu bu baax ak Dieng seen sama waa Koumba Sali di nuyu Lat Diop Lat Diop maa ngi koy woo si combat bi Lat Diop.